waaw ñuy euh, nuyoo d'abord di leen nuyu yéen di nuyu population bi yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla defal ñu tabaski jàmm dama wax ne euh, ci mbir yi nga xam ni ñoo xew ñetti proposition ñetti xalaat laa bëgg a jox njiitu réew mi benn bi mooy mu jël décret dindi décret bi nga xam ni moo jëlee fonctionnaire bi ñuy wax Ousmane Sonko ci administration bi ndax dogal boobu teguwul ci yoon kon ñu ngi ñaan mu dàq dogal bi ñaareel bi mooy Haut Conseil bi nga xam ni alal ju bari dina ci dem ay milliards yu bari dina ci dem te amalul askan bi benn njariñ ñu jële ko fi te alal jooju ca waroon a dem ñu dugal ko ci njàng mi dugal ko ci paj mi dugal ko ci liggéey yi nga xam ni moo jëm ci xeex inondation euh, ñetteel bi mooy coow li bari na ci ni ñuy gérer alal ji war a bàyyi ko ci pétrole bi ak gaz bi ak ressources naturelles yi de manière générale ma digal ko mu taxawal benn kuréel boo xam ni ñëpp dañ koy séq waa université société civile presse bi ñu tuddee ko conseil de surveillance boo xam ni mooy saytu contrat yi ci am yëpp incha allah jërëjëf